si minuit bu ma la woowee jotuma la mooy teppi naa sa dajaw nday yow ak gel bi li ngeen nekk dina ni ci bàyyi di ñàpp seen nday lan moo tax ngeen di def lii di photowu di filmer seen bopp di photowu dinaa teppi seen dajaw nday yéen ñëpp minuit pile jotuma la mooy daqaar naa sa mais li nga bëgg a wax mën nga ko wax saa nga saaga oh, mais ñu def lépp ci respect mooy loolu yaa ngi dégg damay minuit pile naa dugg sa live dinaa dugg sa live ba ma kóoli nañ waxtaan mais mooy loolu dinaa la déglu li dafa ñaaw ngeen di mel ne ay jéekatu porno nii lii dafa ñaaw torop yow hélas lii lan moo lan moo tax ngeen di def yu mel nii moo wax ngeen di filmer seen bopp man damaa comprendre lan moo tax lan moo tax ngeen koy def quoi loolu laa xamul man pour pourquoi tey mi ngi may bind maa ne ko bul dugal da jaw ndayam ci situ porno bi bàyyil ba ma jàppaleen guddi ba pare waaye xam nga rek kii maa moom pour te yàgg nañ te mosul lii mosul am kon lii bu amee rek erreur la quoi man mosuma d'accord nekk jigéen muy filmer waaw mais te peut-être lii bu amee daa fekk yàlla dafa dogaloon ni moo dafa waroon am waaye mais pour te dire vrai moment non ñu ngi jégalu bu baax waaw. def gen quatre ans ah loolu ni ngay filmer seen bopp di def lu mooy mais yéen yéen waaye yéen est-ce que wér ngeen est-ce yéen.